Dakar News 221 abonnez kii moom génnewu ma ko si sax nag gis nga gis nga kii li xew génnewu ma ko si sax gis nga famille bi doobee yi sacrifié rek la nekkee ci réew mi doobee raam yi ku ñu seqal ku ñu seqal sacrifié gis nga famille Ndour yi ñoo dàq sacrifié ci réew leen laa leen wax ñoo ay sacrificateur lañ de. leer laa leen wax deret la ñuy laaj gis nga famille gi deret lay laaj deret famille gi day tudd deret du ñu gis nga famille bi du ñu deede du lu leer laa leen wax te yéen a ngi fàttali papa ji papa ji sax day anniversaire eh. papa ji day anniversaire eh. du ñu lu leer laa leen wax deret yu deret yu bees taq lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy laaj lu leer laa leen wax te bis bu ñu feebarlee da nga dégg ku ku ku leen jege dee na waaw xeet bi mooy jugee nii ngeen fàtte nii ñu duñu sax gor bu tardé ñi la ñoo la tardé ci réew mi gis nga gor bu fi tardé ñi ñoo la tardé wax naa leen gor ñi moytu leen xeet gu ndayam gi baaxuñu moytu leen xeet gu baaxuñu dañuy yàqu gor dañuy yàqu gor moytu leen ñii moytu leen ñii gis nga ñii xatax ngi nekk ci réew mi dama daam di lekku leen naanu leen mais fu leen fekk yéen a ngi fecc yéen ngi ci réew mi problème rek nekk ci réew mi mais fu leen fekk yaa ngeen di fecc ngeen di di di wayak ak moo lekk parce que tayu leen ko tayu leen ko le colère xeej bu teg gi teqal la kooleel xeej bu ndeyam gi wax naa leen ma xam de Dakar 221 abonnez-vous